الحمد لله الرؤوف الرحيم ذي الطول الواسع والفضل المدرار العزيز العليم نشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار ونشهد أن سيدنا محمد رسوله ومصطفاه عليه وعلى آله وصحابته البررة الأخيار صلاة وسلاما متصلي الدوام ما تعاقبت الليل والنهار أما بعد فيا أيها الناس هذا شعبان قد استقل راحلا وكأنه ما كان وهذا رمضان قد أظل قابلا وكأنه أيضا قد انصرم وبان فبادروا رحمكم الله بالأعمال الصالحات ما دمتم في قيد الحياة وأجهدوا أنفسكم في تصحيح أعمالها واغتنموا فضائل الشهور عند إقبالها فقد كاد يقدم عليكم قادم كبير القدر والشان وسيزوركم قريبا زائر الخير والإحسان وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وشهر الكرامة والرضوان وسيد الأوقات والأزمان وخير شهر استحل على أهل الإيمان شهر تناديكم فيه الرحمات من قديم الإحسان وتصفد فيه الشياطين ومردة الجان وتفتح فيه أبواب النيران وتغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران شهر نال على شهور المرتبة العليا ونزل فيه القرآن إلى سماء الدنيا <coughs> فحافظوا على أوقاته <coughs> وتعرضوا فيه لرحمات ربكم ونفحاته ففي الحديث من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ على ما ينبغي أن يتحفظ منه كفر ما قبله يغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين بك جلدي من عبون سنت يالله سبحانه وتعالى جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاج فلسيقنا سي عمد الخديم نونغي فاتلي دلين دينك دينك سنو بوب دي فاتلي سنو بوب جامو يالله أكرغلكو تخمني لولو رك موتاك مو بيندونو ci la suñu yitte jëpp war a jëm nu góorgóorlu ci ci pas-pas ak ci wax ak ci jëf yal na nu ci kattanal te nangul na la ca tege mbokki mooy saabaan mi ngi nii di wane gannaaw di dem te nekkoon weeru waajtaay woo xam ni dañ ko doon waajale gan gii nga xam ni mooy ñëw ci jàng alquran waajal sa xol fóot ko ba mu set ci jàng alquran ak zikrullahi waajal say cër ci tàggatu ci ci jaamu yàlla waajal sa alal ba nga xam ne lu ci bokkul génn na ci ba nga xam ne bu weer wi duggee bu gan gi egsi dana fekk nga laab qalban wa qaalaban fekk sa biir laab na sa biti laab na sa alal laab na sa lépp laab na nga duggee ci weer wi ak cellte loolu la weer loolu moo doon weer moo doon daraje weer wii ci ci ci weeru koor ni nga xam ne ni ngay waajale gan gooy bëgg am ab séed rek boo ko doon bëgg am fan yooyu doo am jàmm waajtaay danga waajal sa jëmm danga waajal say barab danga waajal say ñam danga waajal lépp ndax bu egsee ni ngir rek bu egsee billi noonu lañu doon waajale ramadan ci weeru saaban wii def nanu ko yàlla nanu ko yàlla nangul lu nu ci deful yàlla nanu tawféexal ñu def ko ci biir weer wii nu jublu te nangul nu jaamu yàlla yépp ci kattanuk borom bi bi jaay sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam noo ngi nii nag fas yéene dugg ci weer wi ci jàmm insha allahu taala yàlla nu ci yàlla dugal ci jàmm te génne nu ci ci jàmm altine ji bu soobee yàlla mooy doon seenu bu njëkk ci ni nu ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digale ni nga xam ni moo tolloog sunub gis nun benn ko weer altine ji moo doon ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci nun ci lañ koy séentu bu fekkee gis nañ ko fa lillahi alhamdu buñ ko weer talaata ji buñ ko gisul nu bàyyi ba àllarba nu woor loolu la lu ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam digale waaw suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'bana salasin na ngeen woor bu ngeen ko gisee na ngeen dog bu ngeen ko gisee su leen demee ba gisu leen ko mottali leen lim bi fanweer loolu moy ndigal li lu leer nañ amul li nuy lam lamé sayyid cheikh Ahmadul khadim it digal nu ne na ngeen folli nopp yi te fal beuti na ngeen folli nopp yi te fal beuti yi bokk na ci limu mu mujj ba tale dégg-dégg yi amatul soro woro tut nan fal beuti yi tal fekk mu loolu dëppoog sunna sa so mo li ru'yati kon insha allah taala altine buñ ko gisee wor talaata buñ ko gisul wool alar awar alar ba yeneen ak yeneen nag mën man na xew ñeneen mën nañoo gis leneen yeneen mën nañoo dégg leneen waaye loolu noonu concerné na wóolu noonu daal li ñu concerné mooy ndigalu yonent bi ak ndigalu Sëriñ Tuubaa suñu kilifa te loolu mooy séentu ko ci laata woota walta war talaata buñ ko gisee buñ ko gisul nu war àllarba insha allahu taala alon si yàlla yóbbu ci jàmm li ci def nag buñ ci woor weer wi mbokk yi nit ñëpp ñëpp ñëpp koor gi rek la séentu ak woor ca te am na lu ëpp solo ëpp doole koor gi woor buñ nee ëpp doolee koor gi du ci wàllu ndigal ndax koor farata ci ndigal yàlla la bokk kenn sañu koo euh, bay bañ a def waaye nag am na ci biir loo xam ne moo ëpp doole koor gi tol na nit ñi duñ ko bàyyi xel duñ ko faral di bàyyi xel ñu bari rawatina suñ réew mi ñu bari bàyyiwuñ ko xel boo génnee ci bitim réew ci da nga gis ñoom ñu nemme ko ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax loolu mooy lan mooy ndimbalante bi ci biiru bi ci biiru woor dimbale ku néew doolee ba mu mën a weer woor woor weer wi te du sonn mu ëpp doole koor gi moo ëpp yool ak donte koor gi ndigal la sañoo ko bañ waaye dimbale ku ci ak ku néew doole ba mu mën koo woor moo ëpp doole sa koor ak bopp gi loolu nag day mel ne bàyyi ko xel te yonent bi salaa sallam def na woon alxalqu iyaalullahi ahabuhum ila llahi anfauhum li iyaali mbindeef yi njabootu yàlla lañu ki gënal yàlla ci nit ñi mooy ki ëppal njëriñ njabootam gi te mbokk yi loolu xel mën na koo nangu sa njaboot gii ki leen gën a yërëm gën leen a dimbale gën leen a toqantal kooku ci sa sa biir këru bopp sax ki gën a yërëm si njaboot gi moo lay gënal sa njaboot moo lay kon boo xamee ne yërmande yàlla ku cofeelam lépp mi ngi aju ci nit dimbale nit ñi loolu mbokk mi boo ko xamee góorgóorlu ci loolu kon bu ñu ci eggee kenn ku nekk loo man asaka yi moom li gën mooy génne ko bala ngaa koor bu ker gi jegee su duggee koor gi nga duggee génn ko baax na waaye ñu génne asaka yi ndax loolu day àq yàlla joo xam ne farata moo koor gi ñoo yem ñoo bokk daraja moo koor gi ñoo bokk daraja ñoo yem ci ponk juróomi ponk yi la bokk ki mu war saa su sa waxtu excès na nga ko daal di génne joxe ko su loolu weesoo nag la ca des mooy ndimbale nit ñi kémtalaay loo man ci sa alal ji nga moom loolu moo tax ñuy wax waaye du asaka ji asaka ji moom sañoo ko bañ te eh, yonente bi sallallahu alayhi wasallam danni إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء قدر ما يسعهم ما يسعهم فإن منعوهم حتى يجوا حتى يجوعوا أو يعروا أو يجهدوا حاسبهم الله حسابا شديدا وعذبهم عذابا نكرا لأن يا سونو الله سبحانه وتعالى سكلنا ابتر من نياك على لي ورم على لي سنلين لين بعنا جوخي باخنا خيف wala ñu mar wala ñu rafle wallaay danaa leen ko mbugal mbugal goo xam ne dana metti lool danaa leen ko isaab isaab goo xam ne dana tar lool mbokk yi loolu lu ma ta bàyyi xel denc alal mu nekk ca banque ba wala ci sa koppoor bu tëdd nga dend rek sa mbokkum jullit koor jot amut lu mu doge mbokk yi loolu responsabilité boo xam ne boo yaakaaree ne woyof na da ngaa àggagul ca bis ba li ngay li ngay jàpp jàpp ne yaa moom alal ji seetaan sa mbokkum jullit mu nekk saw wat ndok jot amul lu mu doge te nga denc lu mu meuna doge bo boo wayef na da nga amul da nga egul ci bis man sa njabot gi mbokki yi nekkon nekkoon bitim réew fab li nga wara dundal sa njabot gi teg ko ci loxo ne ko dundal ma leen ci jox lu mu tëye ko bañ xif xiif koku bu tedde bu nalewé xelam wul sa dal warna xamni dana daje dana daje kilifa gi te nonu la mel nee njabot gi sama njabota li ma la jox sen ak nga ci bo len ko joxe duñu xif qadra ma yas'uhum la wax dafani li nek ci alal ci kaw suuf si buñ ko joxe ci ni mu waree kenn du xif kèn du mar kèn du ñak dañ ko téye assalamu alaykum moo wax qadra ma yasaahum jox naa borom alal yi def naa defal naa ba ñu ñàkk ñi seen seen i ci seen alal yi loo xam dana leen day kon bu ñu wala ñu mar wala ñu rafale rek dañoo lañ leen war jox kon mbokk mi li nekk ci alal ci kaw suuf boko xolé ci dëkk bi li fi ne ci alal su fekkon tane ni ko yor niñ ko wara doxé doxé nañ ni kon xif do am ci dëkk bi mar du fi am ñakum ndox du fi am dara du fi am waye dañu denc leen yàlla jox lool nak man mbokk man le responsabilité la bo xamni euh ku ko woyofal da nga eggagul ci bis ba dañu génne alal yi defal ci yàlla te xamni yàlla la ko jox te mo le digël li nga ci wara def asaka ji mom waxuñu ko faratale sañu ko bañ waye dimbale nit ñi kémtu lay sa katan weeru koor bu jotee boo génnee asaka wala ngay génne looy dimbalee dend ak faqir boo xam ne wóor na la ne bu set bu gàddiwul peelam bi génn du lekk nga woo ko ba ñëw nga jox ko nga ñu ko say dépense ñaata la mu wax la ko du doon dara ci yow bu dee bis bu dee weer juróomi téeméer fukki junneeg juróom la fukki junneeg juróom du dara ci yow bu dee weer cinq mille la trente cent cinquante mille dara ci yow nga yëkkati ko jox ko nga xam ne weeri koor wépp dana mën a toog du liggéey di dund ak njabootam normal loolu bokk yi moo di jaamu yàlla jullee koor du dara du jaamu yàlla jaamu yàlla du dara par par rapport ak lii du dara par rapport ak lii nga war a def ci jaamu yàlla yi du dara par rapport ak li la yàllay fay ci lii jullee koor lu baax la lu màgg la yàlla dina la ci fay waaye lim la fay ci kenn ki nga dimbale ba weeru koor yi mu dund ko normal te euh, refle wut xiifut marut la la ci yàllay fay boo ko xoolee ca lam lay fay ci julli ga du ca doon dara kon ma ni mbokk mi jaamu yàlla yomb na dafa jafe waaye sëgg ak ju sëgg ak sëgg siggi ak woo rek loolu dong taxul ñaan jaamu yàlla nanu dimbalante te yàlla tax te xam ne dimbalante gi ndigal la sañu nu koo bañ alal yi denc nañ ko génne génne asaka yi dimbale way ñàkk yi kenn ku nekk la nga denc am na koo xam ne kii li mu denc téeméeri kër yi ko wër mën na leen a dundal ci koor gi te du ko yëg du jeex ci dëkk bi su fekkante ne ñu am alal ci dëkk bi bépp def nañ noonu kon weeru koor kenn du gàddu ko pel di waaye weeru koor jot nit ki xëy amul sax lu mu xëdde mu gàddu peelam di wëndeelu ngir yóbbu boole ko kooram waa këram ne tocc di ko nekk mu wëndeelu ba ngoon jot amul lu mu leen yëpp mu ñëw ak loxoy nee na mbokk yi loolu dis na lool ku mu woyof dalaa dellu ku woyof ku ku woyof teew dalaa dellu nañu góorgóorlu dimbale jaamu yàlla yi nañu góorgóorlu dimbale fuqaraa yi ba ñu bañ a sonn ci koor gi man naa am man naa am man naa am soo génnee loo xamul foo koy def andi ko ci jumaa ja wala ca jàkka ja nga teg ko ca loxo com loxoy commission ba fa ne jaamu jaamu yàlla yi ko ci tumuranke ñaara ci ci jàkka yi lay ñëw bu dog jotee fii day wo fii fii day fees dell bu dog jotee fii day fees dell mu wóor la ni ñii ñu amul ñi ci ëpp ñoomul ñu ñu néew ñoo ñoo ñi nga xam ni ñoom la fi julli gi fekk ñu fi julli gi fekk te seeni kër jege sax duñ fi dogee waaye ñu dox ci mbedd mi ba dog jot te amuñu fenn wala ñu jëm sori ñooy jàddi fii defi ndogoo kon defar ay xéewal andi ci jàkka ji لولي تم لو باخ لا كيب كوكو مان نانكو ديف تي يالا تاخ سو ماني كافتيرو كافي ديف كو سو ماني كليب سوكر ديف كو سو ماني تاندرما ديف كو سو ماني توغ نيب اندي كو ديف كو كوكو ديف يالا دانا لا فاي ناخ بجا يالا ي نيو دولي جي سوري ييب تي داتي جاك جي بو جاك جوت جاك جو ديم بو دوك جوتي مبولو ما دا فاي فاس ديل ديل ديل سنغال ناك خمو نيو تولو واي في ني بو генي تي ريوي نار يي بروم علال يي كو دوغو yoo xam ne guddi gu jot dañuy financé loo xam ne kenn du xam ne mu toll si boole koog di jox ay enveloppe dañuy jox lay jox nga lekk ba rek naan ba man dañuy jox la enveloppe nga dem ñibbi te bis bu set dañ koy def ba jant ba weer wi dee loolu déedéet la naar ya naar yi waaye Mali gii boo demee am na ñu koy def Mauritanie gii am na ñu koy def Sénégal gi xam naa boo demee am na ñu koy def waaye bëriwul de fonkuñu ko de fonkuñu ko de nañu gën a fonk dimbalante ci la jaamu yàlla gën a jaamu yàlla gën a kul ci julli ko koor gi nañu góorgóorlu li ci des mooy nu ñaan dolli dolli ñaan ci réew mi nanu dolli ñaan ci réew mi te xam ni dara weesagut bu kenn fanax ne jàmm am na déedéet jàmm jàmm nag mi ngi am te it ñaan yit mi ngi am njariñ waaye nag nañ ko yokk rek ndax eh, eh, eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ bi daan wax ni ku ragal yàlla mat naa ragal waaye ku ragalul yàlla it mat naa ragal boo seqee ku ragalul yàlla dangay fonk da ngay foogu foo toll ab xaj nag bu la bëggee song borom xam-xam yi dañu n xaj bu la dee song la gën a gaaw ci mucc mooy daw làqu ca borom ba soo defee rek mucc moo gën nag di jëm a jànkonteeg moom lu ne mën na la caa fekk kon nag gannaaw na yàlla la ñu am noo di njabootam te it moo nu gën a moo nu gën a yërëm suñu bokk moo gën a yërëm suñu waajur moo nu gën a yërëm mooy arhamur rahimin nen wëlbatiku dellu ci moom tàll ko suñuy loxo mu dox suñu digg ak ñi nga xam ni nguur wala alal nar naa tax ñu nar noo faagaagal nar naa tax ñu nar a sonal réew mi naa tax ñu daa tàmbal réew mi ci kàmb moom rek moo mën ci ñoom dara nanu delli ñoom laa ci wax dara weesagut dara weesagut bu kenn banque say loxo defe ne jàmmaam na ne déedéet dara gut nanu dolli ñaan yàlla musal réew mi yàlla na yàlla musal réew mi yàlla na yàlla musal ni ci loxo yi ñi nga xam ni seeni intérêt leen ñor ba ñu mën a tàbbal réew mi ci guta yàlla na nu yàlla musal ci ñoom te pax mañu pax mañu gas yàlla na leen ci yàlla tàbbal salaa salaam nee na ku gaxal ku gasal sa mbokk ku gasal sa mbokk kamb yaa cey tàbbi kon nag yàlla na yàlla am réew mi yàlla na yàlla may jàmm réew mi كوكو بغا خن جام يالنا لا يالا تبال تا كام بغا غاس يرحمكم الله الحمد لله الذي قدر الازمان وفضل الفصول واغرق في بحار جوده واحسانه الافكار والعقول نشهد ان لا اله الا الله العلام الغيوب علام الغيوب ومالك جماع القلوب ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله الكرام وصحابته الائمه الاعلام اما بعد سمروا فإن الأمر جد شديد وتأهبوا فإن الرحيل قريب وتزودوا فإن السفر بعيد وخففوا أثقالكم فإن وراءكم عقبة لا يقطعها إلا المخفون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيث والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فسارعوا يا عباد الله فهذا أوان المسارعة وراجعوا توبة من ذنوبكم فهذا زمان المراجعة واعتبروا وفقكم الله فقد حق لكم الاعتبار وانظروا بعين الفكرة والاستبصار واعلموا أن شعبان سهر تشعب فيه الفضل والامتنان سهر توبة من ذنوب وتنوير القلوب سهر تزكية الأعمال بفضل الله المتعال شهر أضافه إلى نفسه نبينا المصطفى وكفى بإضافته شرفا قال عليه الصلاة والسلام شعبان شهري فمن سانه لمحبتي وجبت له شفاعتي يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين